alhamdulilah. ñaata at yaa ngi ci place yu Yoff. deux ans. di jaay la. popcorn. di jaay. popcorn popcorn. mu ngi dox wala doxul. waaw vacances yi moom day dox macha allah. même vacance ba vacance ngay jaay. waaw vacance ba vacance laa fi ñoom. su dul vacance yaa ngi ci la ci lu vacance euh, maa ngi si yeneen projet en même temps damay nekk si école yi tamit di jaay popcorn ay Immaculée ay Saint Michel maa ngi Immaculée maa ngi Saint Michel ak cathédrale. léegi dañuy faral di gis ay lab yu bëri ci plage yu ak chaque année ñu ngi koy ñi ñi am ay seetlu ci plage bi muy bëri ay ay ay lab ñaari at yi nga fi fekk yi nga fi mos a nekk yow lab mos nga ko fekkee fii. non daaw moom am na bu ma jot a fekkee bu metti sax mais boobu daal xale bi man ba muy dem sax ñu ngi koy yuuxu di kii nii mais xam nga rek xale moom buy dem di continuer noonu rek xamul lu muy def quoi. Mhm. moo tax dama bëgg parents yi ñuy bàyyi xel seen euh, dëgg la vacances neex na lool mais dañu war a di conseiller doom doo ko tere da koy conseiller di ko wax lu mu war a def mais boo ko teree rek da lay làkkatu dem te boobaa musiba lay jur mhm. waaw boobaa musiba lay nëroo moom musiba lay jur da nga koy woo di ko conseiller di ko wax li baax ak li bon di jéem a dox si xelam quoi di ko won ni carrément responsabilité bi ngay yor par rapport ak xale bi quoi. am na jëkkër mais ko tere da koy xamal na ku ñuy tere ku ne rek moom day jàppale li nga koy tere kiiwul mais da nga koy xamal mu xam li fa nekk conséquences yi ko siy fekk ak yëpp am na xel day xalaat comme ñëpp. am nga jëkkër. waaw. am ngay doom. waaw j'ai deux enfants. ah bon. waaw. non non nan nan nga gisee sëyu Sénégal léegi. une deux trois rek sëy am problème ku ne buub ay bagage ñu tàggatoo. non sëy Sénégal ñàkk. ci góor ñi la wala ci jigéen ñi. <laughs> non parfois moom day nekk si góor ñi parfois mu nekk si jigéen ñi sens versal la daal ñoom ñaar ñëpp. parce que jëkkër moom bu dee côté jigéen ñi jëkkër boo ko yoree da koy yërëm suturaal ko comprendre ko. bu meree doo xuloog moom da ngay bàyyi ba mu giif nga woo ngeen waxtaan ngeen tuubee terrain d'entente. yow sa bos day dóore wala day saaga wala day wala wala ku neex dara la day mas la. non non comme bos moom macha allah zéro faute. Ah. lu ma bëgg bëgg na ko ma neex neex na ko. ku neex dal nga ci daal. dal naa si moom macha allah. <laughs> jërëjëf jërëjëf jërëjëf kontaan nañu. merci beaucoup. nii rek place mu ngi dox. <laughs> ah place mu ngi dox waaw. depuis fi. non man sama grand sœur laa fi nekkal yàgg na fi moom. mais man yàggaguma fi. ah fi yow yàggoo. non non. labi am ci géej gi lan mooy sa xalaat ci labi. waaw su ma sañoon nag mu gën koo kii nag gën a sécurité xale yi mooy loolu bu ñëwee ñu xam fi ñu war a yem mesure barrière yi comme ni leen defal nii toog zongé wu bi ëpp la nga dem ñibbi moo ma gën gënal daal sangu bi parce que ñun ñëpp ay jigéen lan te ay yaay lan. mais sa géej ba am na sécurité. am na sécurité parce que maître yaa ngi fi duñ leen ci bàyyi mais xale yi bu ñuy rëcc sa doo leen yëg kaa bi nii la demee. kaa bi <laughs> mais cas bi ci réew mi tamit bëgg naa nga laal ci de. man la loolu am nga jëkkër. amaguma jëkkër. amagoo jëkkër. mais yow ban jëkkër nga taamu ci jëkkër yi. ah bu baax bu la suturaal yiir la rek. parce que fii nit du la may loo amul. bul dóor buy saaga. bul dóor bul saaga ku la yiir suturaal la kay du la dóor du la saaga. mais bëggoo bëggoo jëkkër buy dóore. ah bëgguma loolu j'aime pas bëgguma loolu. ah bon damaa bëgg koo xamante ni moom wax dëgg yàlla damay wax wax ju neex di ma soulagé di ma raay di ma fóon di ma waxal ay wax yu baax. aywa dégg nga loo ma door daal door moom bëgguma ko. ah bon non non bëgguma lool. sa kudu jàmm la raj. c'est ñun ay ay jigéen lan ay nit yu baax lan parce que jigéen la yàlla def lu bëri ci moom nooy nooy nekk lu nekk nooy jur lu nekk tamit. kon waruñoo door waruñoo saaga. waaw nan la jàppee comme sœur rek. waruñoo door waruñoo saaga dëgg la mais jullit nga n'est-ce pas. jullit la. jullit la. jullit la. yaa ngi julli. maa ngi julli. Rukon. ma Rukon. paa mooy sëgg kàbba. lan nga <laughs> loo ma bettee ni di ma kii <laughs> Ruko maanaam nga jàpp sa ñaari bëtu oomi. subhaana rabbil azim rek ngay wax <laughs> xam nga soo julli li ngay wax ak boo ak bu la bett nii di la wax loo da ngay juum mais man su ma jox yàlla li moom du ma juum. mais xanaa maîtriser woo ko. maîtriser bu baax damay naafile sax. waaw mais soo loo maîtriser kay xanaa buñ la ko laajee. war nga moo tax su ma nee la subhaana rabbil damay takk. léegi taaya. taaya non taaya bi moom mënuma la ko wax man dama koy cons. <laughs> mais Ndiaye maa ngi dox. waaw Ndiaye mu ngi dox waa ah. nu ngi koy dox ba mu mel ni suul ak bëccëg. client yi ñëw client yaa ngi ñëw suba lay gën a neex na. mais defante bi gis naa ne bëri na fi. ah defante bi doy na waar nag waaye nan xam ne ñëpp rek dañuy jaay rek fair play rek. Hmm. waaw te xam ne lii dañ koy passé après nekk ci leneen. sànq dama laaj fee benn femme mu ne ma dafa am ay tibbante tànk fii. tibbante tànk man yëguma ko nag yëguma ko vraiment parce que man su ma xëy see fi may nekk laay nekk jaay wàcc ñibbi yëguma lu bëri. kon yow gars yi laalaguñ la. non man li may may xaalis rek laa concerné li jëntiwuma leneen. kontaan nañ ci yow. ok merci beaucoup. merci ah. Aïda da nga ñëwoon fii mhm. sa teewaay fii. ba dama ñëw pour euh, lekk c'est bon en plus pour euh, profiter aussi géej bi. sangu. Mm, non sangu ma de. Ah, ok juste regarder. maanaam dundu dundu dundu bi quoi. oui. Mm-hmm. mais la. oui. ok ponk l'islam ñaata. je sais pas. xamoo non. léegi waxtu julli ñaata la. juróom. juróom. Mm-hmm. expliqué. fajar. Mm-hmm. tisbaar. takkusaan. timis gée. léegi booy julli li xam mën nga ma li xaamal. non je sais pas. mënoo li xam. mën naa ko mais je peux le dire. non dama bëgg nga li xaamal ma. non pour ñi lay seetaan. non. dama bëgg nga arrangé yow ñi lay ak ñi ko mënagul. non. léegi mën nga ma taayal. non. taaya mënoo. non. rukkoo boo rukkoo lan ngay wax. non je sais pas. mais kii ah xale bu dëgër la mais am nga jëkkër. non je suis célibat. célibataire ban jëkkër nga taamu ci jëkkër. baaku jullite rek koo xam ne di en fait comme par exemple man fonk ma julli koo xamante si bu waxtu jotee dina mën a jugal na julli góor daal bu ma mat kilifa mais pas góor bu may dóor. soxla ku lay dóor di saaga. non non ah mais xale góor yi léegi ak xale jigéen yi léegi dañ koy jiñante mhm. ñu ne jigéen ñi ñoo nanguwul sëy ñu ne góor ñi ñoo nanguwul say maanaam problème bi lan la. problème bi am na si deux yëpp am na jigéen ñoo xam ne bëgguñu sëy ah, deuxième question bi lan la. am na góor ñoo xam ne mënuñoo téye jigéen. waaw am na ñoo góor ñoo xam motuñu kilifa daal. Mhm. léegi jigéen buy sëy lan nga conseil. ba avant tout nga muñ te booy dugg si sëy nga dugg parce que da ngaa bëgg mais mën nga dugg parce que da nga gis ne ku góor dafa am alal mais loolu yëpp euh, voilà du du loo xam ne dafay wëy. yow intérêt du la dugal ci ko. non non non l'amour avant toute chose. da ngay jàpp te yàlla oui l'amour quand tu n'aimes pas tu peux pas être avec le gars longtemps. ok. merci beaucoup kontaan nañu xale bu baax xale bu yor yaa na nga am jëkkër yaa na nga am jëkkër bu la yërëm mun la mu ñor. amiin merci ok. merci beaucoup. man ñi man ñi laay woo Sagi. Sagi foo dëkk. Euh, man Fouta. Fuuta nga jógee ba fii ci Yoff. waaw wala Dakar nga nekk. non Dakar laa nekk. mais tey da ñëwoon ci place bi. waaw lan mooy doon nekkoon sa tànk fii. Euh, dama ñëwoon juste pour feexal sama xol. Mhm. voilà ak sa xol euh, mes copines. Mhm. feex na. feex naa. marié wala célibataire. célibataire. ah bon. waaye ak ni nga mel nii nga ne célibataire. waaw gis nga. xanaa gars dañ la gisul. si gis nañ ma sax. Ah. man jëkkër nga soxla ci jëkkër yi. man ku jullite ku responsable. kuy door di saaga. bëgguma bëgguñu Mario Mbaye. booy yéen ngi tooñ de arrêté leen. booy arrêté leen yéen ngi tooñ de yéen a ngi tooñ de. Euh, mais tooñu ñu sax. tooñu ñu de. ku jullite. ku responsable. ku mel ni sama papa yàlla caam. jëkkëru kii. yow musulman nga. yaa ngi julli. maa ngi julli. waxtu julli ñaata la. Euh, cinq. cinq. léegi est-ce que mën nga ñu wax taaya. soo taaya lan ngay wax. Uh, atayaatu lillah mhm. azahayaatu lillah mhm. uh, day baati salawaatu mhm. wa barakaatu damaa jàng booy ah, gaaw oh de uh, sama laamin bi moo gaaw léegi boo rukkoo lan ngay lan mooy rukkuwaat olof bi nag liiwul de léegi boo jàppee sa ñaari ol lan bi nga subhaana rabbil aziim wa bihamdihi trois fois. soo tegee sa jëbi ci suuf. Eh, subhaana rabbil ala wa bihamdihi trois fois. Eh, kon dama wàcce de dama wàcce. ah, ah bon. wees. jàng nga wàcce nga. Eh, wàcce gu ma mais bon. sori naa tuuti. damay dégg benn saar ñu ne ku ko mënul naafiq nga est-ce que mën ku ko mënul naafiq nga. mooy xulóom su béréb bi falaax. mën naa ko xulóom yaa yor kaafir. naa ko. bismillahi rahmaani rahim qul yaa ayyuhal kaafiruun laa abudu maa taabuduun wala antum aabiduun maa abudu wala ana aabiduun maa abattum wala antum aabiduun maa abudu lakum diinukum wala diin déedéet jum nga jum nga mais lakum diinukum wala diin dafa am foofu yow mais wees ñëwaatal foofu ci saar bi qul yaa ayyuhal kaafiruun laa abudu maa taabuduun wala antum aabiduun maa abudu wala ana aabiduun maa abattum wala antum aabiduun maa abudu lakum diinukum wala diin. waaw lakum diinukum wala diin lan lay signifié. ko lakum diin lakum diinukum wala euh, euh, <laughs> diin damaa mënul olof nag. waaw mais mais mais explique. lakum diinukum wala diin xamoon naa mooy ku nekk ak sa ah, ku nekk ak sa jaam. waaw ah, ça la. man Amadou. Amadou. waaw Amadou da nga fii ci place Yoff tey. waaw. da nga sangu si wala da nga ñëw pour lekk si jën wala tooyal sa xol quoi. non pour juste air quoi jël air. da nga ñëw pour jël air. Ah. de moom kenn du ko lakk ndax julli laam di julli. waaw ah, c'est ça waaw c'est ça waaw. laaj faratay julli ñaata la. faratay julli ñaata ma ko xam nga xam nga léegi dañ ne. Sénégal dafa bëri ay jullit. mais dañ pratiqué wul diine ji. parce que xale yi jàngalatuñ leen diine. ndax dama bëgg xam ndax yow da nga bokk ci xale yi nga xamante ni say parents jàngal nañ la sa diine wala bokkoo ci. moo tax ma lay laaj parce que parce que yow li may tontu. du sama parce que xam naa ko mais ñi lay seetaan te xamuñu ko ñoom ngay arrangé. léegi ñoom dañ def ba xam man li ma xam rek man su ma ko waxee ñoom dañ koy xam man dama. loolu laa bëgg nag. yow xam nga ko ne ce léegi dama la laaj faratay julli ñaata. yow xam nga wala xamoo ko. non man xamuma ko. man daal xamuma ko. soo julli lan ngay wax. soo julli. lay wax maanaam. avant ngay def allahu akbar. waaw allahu akbar. ay li xam. li xam laa bëgg nga li xamal ma. li xamal la. <laughs> fii yem na ma de. <laughs> ah ok. allahu akbar allahu akbar. ashhadu an la ilaha illallah. ashhadu anna muhammadan rasulullah. حي على السلاد حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله kooku mooy Amadou Amadou amagoo jabar non non amaguma soxna dañuy dégg ñu ne xale jigéen yi léegi ñoo nanguwul sëy ñu ne xale góor yi ñoo mënut a yor jigéen yow ban jigéen ga taamu ci ci ci pour mu sëyal ban jigéen laa taamu pour mu sëyal juróol la sëy jigéen bu rafet boo xam ne am na diine. jigéen bu rafet bu am diine. waaw waaw ah, léegi lan nga ci moo rafet. ah parce que avant tout c'est la beauté quoi yow jàkkaarloo jigéen bu rafet day feexal sa xol bu rafet day feexal sa quoi. ah bon mais daal na rafet tam tam am diin. Ah, macha allah comme xawaaw quoi. yow boobu jigéen nga tam. suñu maam xawaaw quoi. jigéenu millier. non man j'aime pas quoi. ah taamoo jigéen nu milieu. ko woon. Amadou naa ne dama koy may ci màdd gi rek parce que kii moom kii ay parent buñ ko seetaanee dinañu kontaan lool ci moom parce que liñ ko jàngal mu ngi ci moom Amadou ma ca ci màdd ji kontaan nañu ci Amadou waay. merci na xaar bi si lan nga ne. ay waay man formation laay def étudiante la. ci wàllum santé. <laughs> saful de saful. saful kay ndax sa question bi nga posé nii. lan moo doon sa tànk ci palaasu Yoff. dama ñëw pour détendre. Mhm. féexal sama xol rek. vu que ñu ngi ci weekend loolu kese la woon. est-ce que tàggoo nga. na. tàggoo nga. na ah mhm. mais dañoo dégg ne plage léegi dafa bëri ay lab. ah am na gis naa ko si ay journal mais man mosuma ko gis nii. mosoo ko fekkee mosuma ko fekkee mais gis naa ko ci journal. mosoo am xarit wala copine bu mos a la. non non. lan ngay lan ngay dénk parent yi nga xam ne ñu ngi bàyyi seen doom ñu ñëw ci plage. parents yi ah tantôt am na ñi nga xam ne ni seen parent yi dañu leen bàyyi ñu ñëw ñeneen ñi dañuy dañuy ñëw nii amuñu amuñu sans autorisation parental lañ fi ñëw mais bon ce que je me nañ nañuy surveiller seen doom yi rek waaye ñuy ñuy dialogue bi surtout ñuy waxtaan ak seen doom yi c'est la base voilà. communication communication c'est la base. xam nga jafe. non non. xam nga ko jafe dañuy dégg ñu ne sëy léegi góor ñi ñoo mënut ko yor jigéen. ngir yàlla bu ci dugg ngir yàlla. góor ñi ñoo mënut a yor jigéen jigéen ñi ñoo nanguwul a sëy. loolu c'est vrai wala. loolu de ci dara moom honnêtement. ban góor nga tàmm ci ci ci ci ci góor ñi. kër su woon ban góor nga taam. man ku may respecté rek jox ma sama valeur rek jeex na toppatoo ma. ku la respecté jox la sa valeur. Mhm. boobu góor nga taam. waaw na la ko yàlla may kontaan na. pareegu ma ci question yi de gis nañ ne chrétiens yi macha allah dañoo am yar am éducation ba pare dañoo dal xam li ma mais est que yow yaa sa diine yow. bien sûr. da koy pratiquer bu baax damay dem mees uh-huh. assidu mees prière boo am damay dem damay prière sama kër voilà woor damay woor tamit bokk na ci sama weeru ko damay woor 40 jours ba mu jeex këpp ngeen mi dem naa def naa marche <laughs> ah def naa marche léegi su ma nee ñu woyal ma benn woyu mees est-ce que dañ ma woyal benn woy Mariama suñu lingeer yeesu wàcceel yërmaan gi yàlla oh bravo merci beaucoup tàccu leen ma xale bi kii moom kii moom wax dëgg sama xarit def maa ngi fii tur la Fatma Fatma Fatma tey da nga ñëwoon fii ci plage yu Yoff oui dëgg la da nga lekk si jën wala da nga sangu si dañoo ñëw féexal ni sangu siwuñu da nga ñëw nga boo liggéeye semaine bi yëpp faudrait que week bi nga divertir un peu divertissement da siy baax day wàññi stress en fait. ok kon bàyyi na jàng mais yaa ci liggéey bi. ma jàng sax je continue toujours mais damay liggéey en même temps. ok nee na bàyyiwul jàng mu ngi ci lépp mais macha allah xale bu jong ma xale bu civilisé ñu bëgg la laaj tuuti am nga jëkkër wala am nga jëkkër. amaguma jëkkër. ban góor nga taamu ci góor ñi. ah on dit souvent taamukat dal si ay carax lay mujj bëgguma mujj si ay carax donc taamu ma en na nga jub daal na nga franc na nga religieux bien loyal et bien éduqué en fait. ku am wala ku ñàkk. am ñàkk loolu ça compte pas en fait moi je me dis nit ki boo xasee bu ngeen xasee ba bëggante rek loolu ça compte waaye am na ñu koy taamu parce que nit ñi ñu benn te nit boo doyloo si li nga am doo sonn c'est ça en fait. léegi ñu bëggoon laa tuuti rek euh, sa wàllu diine comme que musulman nga yow ñu bëggoon a xam yaa ngi bien sûr maa ngi julli. waxtu julli ñaata la. cinq xanaa. cinq la ponk l'islam ñaata la. comment. ponk l'islam ñaata la. de l'islam cinq bien sûr. léegi euh, euh, euh, <laughs> faratay faratay julli ñaata la. c'est pas farata olof bi nag dégguma ko bu baax de. faratay julli xam nga julli dafa am farata am sunna léegi farata bi benn boo ci bàyyi rek sa julli baaxu farata yi benn. ah yow attends attends yow tu veux parler des heures julli quoi. non oh non prières obligatoires yi. waaw. bien les cinq prières obligatoires non. suba 14 euh, heures je ne pas comment le dit en wolof 17 <laughs> heures 17 heures bi bien sûr timis et voilà et gée bu la neexee nga def safa 8 heures safa 8 heures ça c'est une obligation en parce que man je me dis que c'est une obligation jullit yëpp war nañ ko def yoo xamoon nag li ngay julli cinq prières obligatoires yi ndax yàlla da koy nangu pas sa pas witre da si baax aussi nga koy def parfois. yow li nga tontu question la mais ba tey man question bi ma la laaj tontu goo ko ponkin islam euh, euh, faratay julli ñaata la am. en français. mais faratay julli li xam farata la wala du farata. li xam farata la bien sûr. soo li xam lan ngay xaaral li xam bi mooy début julli bi astafurlah astafurlah ashadu an laa ilaaha illallah ashadu anna muhammad commencé ah tonton nag yow bay ngi wax maa ngi wax dégg yow bul kii bay loolu bëgguma ko def nii te en plus maa ngi sol li nga xam ne mooy loolu tudde astafurlah astafurlah ashadu an laa ilaaha illallah ashadu anna muhammadan rasulillah xayaala salaat xayaalal falaat xat kaamati salaati allahu akbar allahu akbar laa ilaha illallah seydina muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam merci beaucoup kontaan nañu mais nag su dee am nga oustaz après demaat fa mu jàngalaatal loxo parce que parce que boobu ah Bilal de wax dëgg yàlla moom Bilal de mooy noddukat bu mag bi Bilal moom kenn du laajte julli laam di jullit Bilal moom mooy noddukat bu mag bi Bilal yaa ngi si jàmm. Ah, sant yàlla wéer. ah da ngeen ñëwoon pour waaw. Hmm. Bilal yaa ngaa ñëw fii. ah yàgg naa fi yéen. Hmm. waaw. mais lab yi ñuy dégg ci géej yu yof dëgg la wala du dëgg. si lan ñun. lab yu bëri xale yi fiy lab. ah bari na moom wax dëgg fa yàlla. Hmm. bëri na trop. ma soog a fekkee. ah benn rek laa su ma fekkee te la woon. ah xale la woon. Ah, mais Bilal yaa ngi julli. ah maa ngi julli de maa ngi julli. faratoo julli ñaar. waaw yaa nag ah maa ngi julli moom frère moom maa ngi julli waaw. faratay faratay ñaata la. waay saa yi tamit loolu tamit jarul laaj xam naa. Ah, boo xamee da koy tontu. non cinq waaw ah. ah. waaw. Ah. mën nga ñu lu xamal. ah mënuma ko de. li xam. mënuma ko de gaan. li xam li xam. waaw. mënoo li xam. sooru ko lan ngay sooy. sooru ko. sooru ko. waaw subhaana rabbiyal azim trois fois. Mhm. après boo siggee boo sujjuree tamit nga subhaana rabbiyal ala mhm. toogee boo siggee nga toog. xanaa rabbi wu fili trois fois. Mhm. soo taayee lan nga wax. attayaatullaahi azzakiyaatullaahi tayyibaatu salawaatullaahi asalaamaaleykum ashhadu anna muhammadan rasulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam. jaxase nga ko de. non non la. mais am na da nga ko jaxase mais garaawul dama lay comprendre parce que xam naa caméra bi tax da ngaa tiit quoi. léegi léegi qul yaa ayyuhal kaafiruun mun nga ma ko tari. ah mun na la kaa tari. tari ko. qul yaa ayyuhal kaafiruun laa a'budu maa ta'buduun wa laa antum aabiduuna maa a'budu wa laa ana aabidu maa abadtum wa laa antum aabiduuna maa a'budu lakum diinukum waliya diin am nga jabar. non amagu ma jabar de. amagu ma jabar. waaw booy ma am jabar. jigéenu jigéen ban jigéen nga taamu ci jigéen ñi. si comme noonu. jigéenu milieu ba nga ko wala bëggoo. ah. waaw lu mu am baax na rek. ah yow loo am baax na. man man na am jabar bu baax rek. non ma yow yan yow yow ban jigéen nga taamu pour mu juróo la say doom xanaa bëgg nga ay doom yu baax. waaw bëgg naa ko moom. ah waaw léegi ban jigéen nga taamu pour mu juróo la say doom. <laughs> ah jigéen boo xamante ne jàng na day jaamu yàlla tawa ba pare mën a say waajur. jigéenu millier wala xamal luy millier. Ah, wala moo xam ma jigéen ñi dem ci boîte yi xam nga. Ah, non non Zaa Zaa yow bëgguma leen. bëggoo waaw jigéen buy tux. bëgguma kuy naan sàngara. yooyu yëpp bëgguma ko gaañ. Ah. waaw jigéen ñi sàcc nag naan lii di def ay affaire du rocc firi rek jam yooyu. non ñoom ñu bëgguma leen. yokk lislaam nga bëgg. waaw jërëjëf Bilal Bilal merci beaucoup.